caagee nu ku jóg dégg ko Cerno ci tukulóor kilifa diine lay doon goo xam ne lislaam moo koy fal yaakaar naa ni kii toog lislaam moo ko fal kon nag seex Alassane soxna Aïssatou ne mi ngi lay dalal ci sa di la dalal ci sa dëkk di la xamal ni wàccewu la ci ay néeg ci xol la la wàcc ndax yow kat bi soxna Bali nekk àdduna la la soxna Aminta Diallo boole la ak soxna Asu te booba soxna Bali mi ngi ci booy ñëw da nga wan soxna Baali ne ko yaay sunu waajur waaye soxna Astu mooy sama xarit loolu yi nag ak jàpp la te ba nga koy jàpp àdduna melagul nii nga dem ba tey jii mu toog di soxna Baali yàlla na fi yàgg ci di soxna Maymuna woote laylatul xadar nga jóge Fuuta ak say coono ak tàngaay wi ni bala maa taxaw damaa gis soxnaas loolu rëy na ci moom loolu waaye nag ñëw nga foo xam ni fii nga ñëw danga fee dëkk Serigne Touba ñaari maamam yëpp Fuuta la nu koo woon kee nga jóge Gollare. kee ma nga jóge Gollare. kee ma nga jóge Jolof. kon mënu laa génn ci kenn rek. kon yéen yéen a bokk lépp. ngeen bokkaat nag diine ji. bokk réew mi. ba bokk ba pare nag bokk génération. bi ngeen bokkee génération nag ba noppi. man ngeen a bañ a bokk nag ay objectif. ba noppi nag ngeen bokk ko. yàlla boole leen. nga jàpp ko jàpp gu wér koo xam ku xam soxnaas dana xam jàpp nga ko waaye soxnaas su nag jàpp na la ca dafa am nag lu mu nuru maamam Serigne Touba daana wax boo dikkee ni ma jàpp naa la du ma la gaaw jàpp de ndax nit day jàpp ba mu yàgg mu bàyyi dama lay seetaan boo dëgëree rek sa jàpp ba ma jàpp boo bàyyee yow man dootuma bàyyi soxna Astou nee na noonu yi rek la mel noonu la la téye ndax réew bi bari na lu fiy xew bari na fi jaar waaye yow dey li imaas waneekul réew mi di ko nettali Rousseau jaar ci menn mbett Rousseau dem ci genn kër Rousseau Rousseau dem ci benn tali Rousseau dem ci genn daal kon loolu jikko la yoo xam ni tedd ngay jikko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lan ko tagge woon danoo wax ni koo xam ne lii mu lay wax tey ak la muy def bu suba du doon benn bul jàpp matul xarit waaye koo xam ne lim lay wax tey ak lu yàgg-yàgg jëfam du wet di wax ji jaar déel bu baax nit a ngox nit a nga noonee déel kon soxna su nee na téena la di wax ñi nga àndal nag nit wan ni leen ni la téye soxna su nee na na ko kon ku di xaritam fii ci màggal gi léegi nii daa am ku sëgg ni ko presse ba dafa bari ca kaw ndax dara danañ fa xaj mu ni sama digg ak moom na télévision yëpp ñu na rajo yëpp ñu ndax nëbb ma ko kuy sojati la moo ma jàpp ma jàpp ko nan wane loolu loolu ko ñu ma kenn ko ko wane Serigne Touba daa am ko ñëw ni ko renseignement généraux yi ngi ci biir kër gi fees fi del mu ne nan nett li rek lan gis ndax man nëbb ma ko yàlla loolee la la soxna su teeroo kon nee na ñëw nga sa kër dani woon nan la bàyyi nag ndax naana goo ndox te koor gi tàng na ba nga dog mu doog a doog a wax ak yow waaye xir ak yéene moo tax mu ni nan fari yéeg rek kon ñëw nga sëkkal nekkal ci jàmm yaa koo àndal jërëjëf di santaat yàlla bu baax di nuyu nag soxna Astou nuyu bi nag day yóbbaale honorable député Aminata Diallo moom mi ma tàbbaloon ci kër gi di nuyu nag soxna ki ne coon mu baax mii di wax lu baax di ko def ndax moom lu baax lu ne daf ko yéene seex lu mu gis lu rafet lu ne yaakaar ni seex bi moo ci jekk lu mu gis lu baax ci wax mu yëg ñu ko loolu yi nag moo tax ñoom am mbégte lool ci daje ak moom fii nag wax na dëgg nag ma ñëw. fii ma ñëw. fu may dem. ñooy am ndax xelam mu sell macha allah. bi nekk ci moom. bis nag màgg na màggaay goo xamante ne. bis bii nag màgg na màggaay goo xamante ni si. li mu làmboo dafa bari lool. alxuraan ci la wàcc ci yonent bi wa sallam. waajuram mu tedd. waajuram mu tedd. soxna Baali. soxna Baali. jëlee ndigal li. jëlee ndigal li. ci waajuram wu tedd. daan ko doxal. daan ko doxal. ba tey ji mu agsi ci loxoom yàlla yàlla. lii Serigne Fallou wax rek. rek mooy dëgg. nee bokki génération. nee na bokki génération. faaw ñu ànd bokk doxal. loolu. wax ju rëy la. gën a ñaax. daf may gën a ñaax. ci sama diggante nag ak moom. mi ngi bëgg a yàgg nag. li ma gën a jàpp ci moom. li ma gën a jàpp ci moom nag. mooy yar bi. ak teggin yi. ak bari gi sutura. lu bari ci réew mi jaga dina woon su ma agsee ci waajuram ñu waxtaane ko moom daan na ci def ay bere ba yooyu sedd guy yu ci bari nag ci réew mooy tax yenn saa yi léeg-léeg ma seen nit wax dara ci télé bi ni lii ba mu amee maa dox maa kii sa sa neex day ree damay ree rek ndax xam naa fi mu bàyyi ko ca ba mu fay bàyyi ko man la moom la waajuróom bu tedd bi ak Aminata Diallo mais kiimaanu yàlla ko soxna Astu ñu ngi lay sant bu baax ci dalal gi di feddali kóllëre gi sunu diggante daan nañu ko doxal waaye fi mu toll nii dañoo jël engagement gën koo doxal su daan daagu ci waaxu la jëm su waaxoo ci xel la jëm insha allah ndax sa taxawaay ak yi euh, nga xamante ni. ak yi mooy ay mission. yu ay mission. yu nekk sa kanam. nga war ko doxal nga war ko doxal. war ko doxal nag. ak sellaange. ndax noonu yi nga mel. lii ma gën a neex ci moom. lii ma gën a neex ci moom nag. daa mën a téye coloré. ca démb. ak tey ak ëllëg na mu koy doxale benn la du soppeeku. jik ca loolu am na solo ci nit maa ngi sant yàlla nag ci daje bii ñu daje du nu ko guddal fedd leen te kolëre la woon gise saafonte santaat yàlla ci daje fi nag ak say mbokk ñëw ci kër gu tedd gii nga xam ne lu fi nit ñaan yàlla nangu ko ndax ni ngeen téye bis bu tedd bii nga xamante ni yenn saa yi sëriñ bi seex bi dégg borom xam-xam bu mag daal di wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko jibril ne iqra yonent bi daf ko wax ni ko mënumaa jàng te waxu ko loolu maa ana bi bi mu ko wax. mooy bokkuma ci ñi war a jàng. loolu nag day ubbi buntu. wane ni moom mooy ki nu war a jàllale. suuratu Rahman moo ko wane. mooy wane ni laataa jibril di ñëw ci moom yonent bi alxuraan di fees dell la woon parce que yàlla boroom xel yi rekk lay wax arrahman la wax allama alquran xalaqal insaan ñett yii nag soo ko xoolee dafa wax ni moom yàlla ci yërmandeem ju màgg ji jàngale na alxuraan kan la ko jàngal ngeen ngi mbindeef lan la ci jublu ngir yonent bi nekk témoin jamono bi muy sàkk doomu aadama loolu mooy bis bi yàlla nañu ci suñu borom fajal suñu ajo yëpp lii soxna Kiné wax rek la ñuy wax yàlla nañu ko ànd ak moom moom soxna su ay at yu bare bare bare bari di ko màggalandoo te sëriñ bi sunu xel dal na ci jataay bii ndax moom mi kët soxna ki ne wax na ko Serigne Fallou wax na ko amul ku ko respecté ci yoon bi toogaayam bii mu toog du fépp déedéet moo tax ma ne sunu xel gën naa dal jikko nag tax na ñoom ñaar ñii ànd bi am ndax am na yeneen i mbokk nag dana saafonte ak ñoom ndax moom nitu jàmm la waaye lii mu def nii ni mu koy defal fii ci Touba ñu néew lan moo tax ñu dollee amaat mbégte ci lii ñu fekk sant nañu nag bu baax di ñaan yàlla sunu jéego yi yàlla na nekk sunu fajug aajo fan yii yëpp nag. fan yii yëpp nag. may informé Soxna As. may informé Soxna As. bari naa tànk Touba lool bari naa bu ne. maa ngi fi maa ngi fi. am na juróom benni weer. li ko waral. li ko waral. du ma ko junjagun fii waaye danaa ci waxtaan ak moom insha allahu taala te suñ ci waxtaanee li ma ci bëgg su doxee ci noppam yàlla man na cee defal ndimbal ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci barkeb Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul dama wax benn nit ma ne li ma soxla ci réew mi kenn rek moo am générosité jox ma ko. kenn rek moo am générosité jox ma ko. muy Cheikh Ahmadou Bamba. loolu nag kii maan la sama digganteeg moom. maa ngi koy topp nag. maa ngi koy topp nag. donc am de moo tax weekend bu jot. ma ñëw. moom xam na jéego yi. maa ngi sant yàlla. di nuyu ñëpp. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ba barakatu.